ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV ñu dalalaat leen ci xibaar eh, ñu àddu ci suñu jàngatu tey bii dañu koy jagleel li nga xam ne moom moo di arrestation yi nga xam ne Eh, ñu ngi koy nemmiku ci langue politique gi waaye itam mu laalaale ci journaliste yi eh, loolu nag dañ koy dooree ci taxawaay yi nga xamante ne si ne eh, moom la lii di état bu Sénégal di taxawee waay itam ak li nga xam ne moom moo di procès yi nga xam ne ñu ngi koy wutal Ousmane Sonko ci ay dossier yooyu nag tey jii moo war a nekk suñu jàngat dañ koy dooreek rek arrestation yu bëri yi nga xam ne ah, ñu ngi koy nemmiku waaye itam mu ah, gën a bëree ci camp bi nga xam ne ah, moom moo di Pastef seeni militant ak seeni sympathisant waaye itam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di leader politique yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Pastef euh, wante itam ak li nga xamante ne si ne acharnement bi nga xam ne ñu ngi koy teg ci seen kaw ci jamono bi euh, loolu nag nekk loo xam ne lu doy doy war la waaye itam euh, dara waralu ko lu politique loolu nag li ko sabab moom moo di bépp arrestation bu am rek nga daal di ci dégg kii di turu Ousmane Sonko waaye itam Euh, dara waralu ko lu dul euh, ñaari poros yi nga xam ne wala ñaari dossier yi nga xam ne daal nañ koy indi ci kii di usmaan Sonko bi ci njëkk moom moo di euh, dossier Adji ak usmaan Sonko boobu nag ni kii tey jii am na loo xam ne ñu ngi koy sulliwaat waaye itam mu nekk li nga xamante ne moom moo dox ci Sidi Ahmed mbay ak ki nga xam ne moom la amaloon benn problème ñu di ko woowee. ab euh, du ngeer loolu nag nit ñi ñu ngi ciy def ay euh, jàngat yu bëree bëri waaye itam euh, di ci leeral Sénégalais yi comme ay actualité waaye nag yu ci bëri ci yooyu lu ñu war a def attention la ndax kat yu ci bëri jamono ji ay manipulation la pour kat mën a indiwaat boobu la dossier bi nga xam ne moo dox ci kii di Ousmane sunko ak Adji Sarr loolu nag Euh, nekk na loo xam ne Sénégal yu bëree bëri booy wuñ ci xel jamono ji waaye nag euh, siwit la boo xam ne ci la ñu sukkandikukat ngir indiwaat lii di dossier Ousmane Sonko ak Adji bu fekkente ne bii la dossier mënta dem ndaxte kat ñoom jamono ji ci euh, falsifier ay dossier mën nañoo jàpp ne ci lañ nekk ci jamono ji moo tax kat lii di sénégalais yi war a wattandiku lenn ci manipulation yi nga xamante ne si ne ak lenn ci guerre médiatique bi nga xam ne Euh, ñi ngi koy amal ñoom waa pouvoir bi ci jamono ji loolu lépp euh, ndaxte kat kii di Sidi Ahmed Mbaye bu ñu waxee ne kat dañ koo arrêté euh, loolu kat yéen wut maanaam benn yoon ak ni nga xam ne noonu lañu gis lii di yoonu Sénégal di ko doxe lii di yoonu Sénégal di ko doxe bu fekkente ne kat daal nañuy sukkandiku ci fee yi nga xamante ne si jaar na fi ñu daal di koy bàyyi noonu mu daal di jàll waaye itam ak ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne jaar na ci te lii di justice euh, revenir ci benn yoon euh, loolukat kat tey jii bu ñu gëmloo ne kat kii di Sidi Ahmed Mbaye arrêté nañ ko euh, xel mënu ko nangu waaye itam gis nañ Sénégal yu bëree bëri di ko partagé waaye itam di ko apprécier loolu nag ñu bëree bëri liñ gën a jàpp ci nga xam ne Euh, ñi ngi jàngat li nga xam ne moo fi jaar comme ni justice bi di doxee ci euh, lu jëm ci ñii euh, di opposition bi rawatina kat Ousmane Sonko ak waa këram ak partaaral gi nga xam ne mu ngi koy def ci ñii di eh, gouvernement bi loolu nag kon yéen wut maanaam benn yoon eh, ñu nekkat dañuy arrêté kii di Sidi Ahmed mbay waaye itam daal di koy denc ci kaso bi eh, loolu nag Sénégal yu bëri war nañ cee yeewu def ci jàngat waaye itam ñu daal di jàngatkat lan mooy objectifu jàpp boobu nga xamante ne si ne ñu ngi koy déclaré di xam ne nekkat jàpp nañ ko Sidi Ahmed Mbaye te kooku di Sidi Ahmed Mbaye si wéeti dossier Adji Sarr ak Ousmane sunko ba ay bakkan faatu ci moom kat bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ordonné boobu la dossier te it yoon wóoluwu ko ci benn yoon waaye itam Euh, donte diglu na ko sax li nga xamante ne si ne kii di juge bi diglu woon na ko reconnaître ko benn yoon ndaxte kat moom euh, dafa nekk koo xam ne dafa fare ci pouvoir bi kon nag yi nga xamante ne si euh, nekk na di xew jamono ji buñ ci bëggee gëmloo ne daal nañ ci arrêté si di Ahmed Mbaye loolu kat laaj na ab taxaw seetlu loole waral nag ñu bëgg cee def suñu jàngat boole ko ci ngir kat ñu xam ne arestation boobu yëmut ak yi nga xam ne moom la ñuy arrêté ñii di waa Pastef waaye itam ba tey ci arrestation yi ci la ñuy des ak dossier yi nga xam ne ñi ngi koy ibbil ñii di waa Pastef ak seenu bu leader loolu nag nekk loo xam ne yu ci bëri buñ koy xool politique daf ciy laale bu baax a baax ndaxte kat saa ñu ci arrêté kenn réaction yi ciy am ci pouvoir bi moom moo di kat seen objectif moom moo di képp koo xam ne yëngu na kat fare ci ñii di waa Ousmane Sonko ñu daal lay teg ci yoon daal lay yóbbu ci kaso bi ah, te it liñ nemmiku constaté ko moom moo di amut kenn koo xam ne eh, jamono ji mas nañ laa jàpp ci wàllu yoon ci eh, ci jamonoy Macky Sall ji ci waa kër Ousmane Sonko amut kenn koo xam ne jàpp nañ la ci wàll yoon wala ñu daal di lay jàpp ci publication ngay ñibbiwaat sa kër eh, yiñ ci dégg yëpp ay ay fii ak mandat de dépôt wala ñu takkal bracelet loolu lañ ci nemmeeku di ko gis ci jamono ji loolu nag nekk loo xam ne lu doy doy war la te war cee taxaw seetlu yeneen beneen mbir moo xam ne eh, nar nañ cee indi suñuy jàngat moom moo di arrestation yi nga xam ne ñu ngi koy nemmiku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di eh, ñi nga xam si ne ñoom ñoo di eh, journalistes yi nga xam ne ñu ngi leen di arrêté ñenn ñi ñu leen di diglu ci wàllu yoon ñeneen ñi tamit ñu leen di jox ay convocation waaye itam di leen surveiller ñii tamit ñu leen di jox ay li nga xamante ne Euh, moom moo di contrôle judiciaire bu ci mel ni kii di Pape Alé ak ki nga xam ne euh, moom moo di Pape Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Thioro Mandela mi nga xam ne euh, moom moo nekkee ca Walfu ñoo ñëpp jamono ji ñu ngi am leen teg yoon ñenn ñi lii di justice mi ngi leen di surveiller ñenn ñi ñu ngi ci kaso bi waaye itam ñenn ñi am na luñ gàll ci seen ndodd ba saa yu leen justice soxla ñu mën leen a daal di convoqué loolu nag neemiku nañ ci ay télévision yoo xam ne Euh, jamono jii dañoo nekk ci contrôle bu mag a mag mën nañ cee jël bu ci mel ne walfu waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di TFM ñoom kat ji jamono bu nekk euh, dañuy gis ne kat lii di yoon day war day faral di pataaral ci seeni mbir naka noonu itam ak ñoo xam ne dañ leen di jàpp ci yoon di leen bàyyi bàyyi négandiku waaye itam Euh, di leen may liberté provisoire te saa yoo xamante ne dañoo jàpp koo xam ne dañoo jàpp ne day joxe information yoo xam ne day concerné ñii di sénégalais yi waaye itam euh, di yee sénégalais yi waaye itam di joxe li nga xamante ne si ne euh, moom mooy faa yi nga xam ne moom moo nekk ci gouvernement bi ñu daal di leen di ubbil ab dossier jàpp ne dañoo ànd ak kii di leaderu Pastef di Ousmane Sonko loolu it nemmeeku nañ ko ci comme bilan boo xam ne noonu la yoonu Sénégal di fonctionné ci jamono jii loolu nag nekk loo xam ne gu war la waaye itam mu indi ab euh, manque de sécurité bu mag mag ci réew mi rawat na ñi nga xam ne euh, daal dinañuy euh, fare ci Sénégal yi nga xam ne dañoo bokkee ci opposition bi waaye wala itam ñuy nekk di militer ci parti boo xam ne seen dafa concerné lii di Pastef te yi ci jooy jamono ñu giskat ñoo xam ne dañoo jàpp ne Euh, dañuy jàppal tànk kii di président de la république Macky Sall ñuy ngàbb ay semiñ di saaga nit ñi kenn jàpp leen tëj leen ku ci mel ni ki nga xamante ni moom moo di Dof ndey waaye itam ñu gis ne kat kii di nit doof am benn kàddu boo xam ne waxoon na ko ginnaaw ba it mu daal di génn di reconnaître li nga xamante ne si ne moom moo di njuumteem teewut dañ koo daal di euh, profito ba nëbbu ko ci jant bi loolu nag nekk loo xam ne ab constance la boo xam ne daal nañ koy def ci bilan yi nga xamante ne si moo bëggoon nañ cee indi li nga xam ne euh, moom moo di suñu jàngat lii lépp nag nekk loo xam ne lu doy dégg waar la waaye itam nekk ak injustice waaye itam nekk loo xam ne ab benn assornement lañ ko bëgg a lañ ko mën a woowee teg ko ci euh, benn parti waaye itam ak ci benn leader boo xamante ne si euh, dara waralut kat ñu teg ko ko lu dul nekkat bokkut ak ñoom xalaat waaye itam indi li nga xamante ne si moo di ab discours bu bees ba Sénégal yu bëree bëri topp ko ci loolu ñu bëgg a won nekkat loolu kat du am te ay personnes yu ndaw a ndaw <clears throat> bëgg a def loolu jaarale ko ci yoon wi nga xam ne ñun ñëpp ñun ñëpp ko bokk waaye itam jaarale ko ci justice bi nga xam ne ñëpp la fi war a nekkal loolu nag nekk loo xamante ne siine lu doye doye gu war la ci jamono ji mu nekk loo xam ne it Sénégal yu bëree bëri daal di nañ koy ñaawlu waaye itam mu nekk loo xam ne dafa fës tamit ba ñu bëree bëri teg ci seen nopp loolee waral léeg-léegi buñ gisee ay télévision yu bëri bëri di génne ay information waaye itam eh, ñiy fiyute ay yenn information di wane ne diw sàngam dañ koo arrêté loolu nag nekk loo xam ne eh, lu mat a taxaw seetlu la buñ ko méngaleeg li nga li nga xamante ne si moom la yoonu Sénégal di fonctionner ak jafe-jafe yi nga xam ne daal nañ koy nemmeeku ci jamono ji injustice bu métti métti boo xam ne eh, ñi ngi ko fi gis waaye itam loolu lépp dara waralu ko lu dul kat ak ay eh, leader politique yoo xamante ne si wala ay borom ndombal tànk yoo xam ne dañoo yaakaar sax ci seen ndombal tànk ba mu jaral leen ñu jaar jël réew mi daat koy mettre à garde waaye itam Euh, bëgg fee indi ay stabili ay déstabilis yoo xamante ne si ne dana waral kat ñu daal di wëlbatiku di maintenir seeni euh, li nga xam si moo di privilège yoo xam ne euh, ñi ngi ko ci amee ci jamono ji wala mbokk yi ñu leen jox dig dajee ci yeneen ni jàngat den wax na ngeen abonné te activé cloche de notification bi pour bépp vidéo bu dugal ngeen bokk ñi koy njëkk a jot